fukki fan a ngi fukki fan dimanche bi dimanche dellu si ba tey talaata nga jóge ndakaaru nga di dem di dem di dem foo dem taxaw sotti wante xelal ak population yi wan leen itam li nga defagum ci juróom-ñaari at yii kenn mënu ko weddi ñu ñaan yàlla yàlla suñu borom mu joxaat la lenge bi le 24 février 2019 à 20 heures nga continuer lii nga def def ko wane ko mu dugg ci xolu nit ñi nga continuer encore incha allah juróomi at loolu nag ci loxo yàlla la nekk yàlla jaarale ko ci doomu aadama yi yàlla mooy fal yalla moy yégal yalla moy joxe yalla moy indi mën-mën moo indi xam-xam moo indi am-am yalla na suñ borom dajale yep, yépp xiir Sénégalais yi ñu jox la majorité bi xam ne lañ wut au premier tour incha allah rabi mu dimas, dimanche 24 février 2019 ñu ne wiiw Macky Sall suñ borom mooy fale suñ borom mooy joxe li nga defal sénégalais yi juróom-ñaari at yi billahi wallahi kenn mënu ko weddi ka fa jóge woon ajuma ñu ne mu ne du jaar illaa Touba mu jaar cees xombol Bambey jurbel ba mu yeggee fa mu jëmoon fekk nit ñu julli nañ ba pare dama ne

nous ngi ci proximité ñu ngi waxtaan ak éleveur yi ñu ngi waxtaan ak avons ñu waxtaan ak nappkat ñu ngi waxtaan ak la jeunesse sénégalaise ñu ngi wax les femmes du Sénégal ñu ngi wax le troisième âge ñu ngi wax les travailleurs monsieur le président lu ñu wax ak ñoom moo di tàllal loxo ñaan yàlla jog jëf boole ci loolu moo waral ak li nga defagum fii ci département bi def ko feneen depuis sept waay waay nit ki bu ubbee xolam gis ko xam na fan la war a wootee le 24 février nit ki dama ne bu jëlee jomam ak ngorom jiital ko xam na fu war a wootee le 24 février yàlla nañu yàlla dimbale yàlla ne raxas xol yi yàlla na suñ borom dugal ci suñu xol l'islam bi ñu gëm